Samis Rita Paradis Massay Ba Lago Faramaren qui est la parmi nous yéen a ngi ànd ak suñu ci TV ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee sa su ne ah ah ok Sénégal dañuy jël ay nit yu rafet ñu am daraja ñu ñu xam ñu utiliser leen pour nax ay nit ci seen xaalis d'accord parce que su ma comprendre bu baax nattu madame Sène bi ñuy wax. madame Sène existé wul de benn tur bu ñu jël la si je me comprends bien léegi nag natta ba dama ci dégg beneen tour muy doomu Ngoy Fall ok léegi Sénégal da ngay jël ay nit ñoo xam ne dañ leen di woowee ñu am personalité ñu mën a sañse ñu am classe ñu leen di woowee ay jëstëteuse ngeen utiliser leen pour mën a nax nit ñi lekk seen xaalis d'accord noonu la fa mën a demee ndax ku sant seen moom du nax kenn wax dëgg fa yàlla jom ak fulaak fayda lañ koy xam leen waaye yow madame Sène yow laay wax dafoo jinne jàpp la foo munti nekk yaa ngi seetaan internet bu fekkee nag yow xaalisu jàmbur bi yow la ñu ko jox nga toog fa nga toog nit ñi di wër ki ñu jox seen xaalis nga toog ne mën nga ma ŋaaral fa nga toog waxoo defoo dara gàddu nga àq boo xamante ne àq day toppe de xaalis jàmbur ku ko lekk di nga ko fay suwaat di nga feebar fe fajoo mbaa nga nekk ci ay jafe-jafe xaalisab jaambur daa diis de seetaat leen yàlla ci li di def ah man nag nag am na nit ñu ñeme nag am na nit ñu am fit de yow nga gis ne que yow ñii ay influenceuse lañ doon ay jet-setteuse yow nga am fitu utilise ñooñu pour lekk ay xaalisu jàmbur mais Sénégal tamit faible ngeen dégg rek yow yaa awa rasul dégg ñu naan ay awa balde yaayu ak euh, doomu ngoy faal rek ngeen jël joxe seen xaalis waa léegi lenn laa bëgg a xam man euh, madame Sène bi ñuy wax bu ñu ko gisulee dañuy jàpp ci jet setteuse yi nga xamante ne ñoo def publicité bi pour ñu fay leen wala loolu question la boo xamante ne dama koy laajte rek pour ma mën a xam daal ndax nag nit bu yëkkatee xaalisam jox la xëy na am na ci yow confiance dëgg la duma fi nekkaat naan da ngeen a am complexe dugg na fi ndax loolu waxoon naa ko répétition lay doon bu boobaa ndax yéen sénégalais yi ku nekk xam na ne yéen dangeen am complexe complexe moom dangeen ko am ba fu ngeen munti dem ci àddina sax seen complexe day feeñ waa loolu jàll na duma ci nekkaat di wax muy doon répétition yéen ñooñu ñuy woowe ay influenceuse ak i jet setteuse yéen laay wax comme yéen ay jët sateuse ngeen te bari ngeen xaalis car macha allah ba leen di woowee ay jët sateuse xool leen nit ñu baax ñi ngeen xam ñu dimbali leen nag ngeen fay xaalis bi bu fekkee gisuñu madam seen ndax yéen yéen a defoon publicité ba bu fekkee nag ña joxe natt ba am nañ fula ndax am na ñoo xam ne bu seen xaalis demee nii dañuy am complexe sax di la laajaat xaalis ba wala yéeg baak wàcce ba di metti ci ñoom ndax xam nga cyber cybercriminalité gee ku ñu fa yóbbu moom escalier ya rek boo fay yéeg di nga découragé ba nga xam ne du la ko jaral léegi nag man dama leen di ñaan ci njekk ndax nit liggéeyam xaalisam dang-dangee dang-dangi ci naaj bi ba mu métti dama yaakaar ne ñi doon nat liggéeyuñ seen xaalis ba ñàkk dama yaakaar ne xaalis bu ñu leen may la wala xaalis ba yomb leen ndax doo dang-dangee dang-dangi subaak ngoon ngay teel a xëy guddee wàcc jël sab xaalis di ko dugal foo xamante ne yow dara leeru fa loolu moom gëmuma ko xëy na nag mun naa nekk ndax am na ñu faible noonu ñoo xamante ne ñoom këfu dale na yóbbu léegi nag euh, comme dégg naa ci turu doomu ngoy fal boobu maa ngi leen di ñaan ngir yàlla xam nga nag lu ma bëgg yéen ay borom daraja ngeen comme ni ngeen ko waxee borom daraja nag day moytu coow xam nga histoire milliardaire moom wax dëgg fa yàlla yoonu pauvre nekku ca dama ciy waslu sama àq nii rek ndax ñi xisa joxe seen xaalis xam nga man munoon naa cee génn bañ cee wax ndax man laa waaye pauvre bu xam sama bopp laa munoon naa cee génn bañ a génn di ci wax ndax nag histoire ab jet sa tër ak milliardaire moom yoonu pauvre nekku fa waaye la tax ma cay wax mooy dama damay wax àddina di ma déglu ma bëgg nag ñoo ñu joxe seen ab xaalis mu nar a niil ngeen dimbali leen rek remboursé leen nag wax ji bana jëm kaw ndax am na yoo xam ne nag wax dëgg fa yàlla rafetul ci seen der yoon yéen ñooñu ndax nag xamuñu ndax yéen yéen a teg seenaw dil la saa neex naan dil woowee dama xamul ndax dil woowu yéen yéen a teg seen ab dil daal di jël turu dam Sène teg ko fa yàlla rek a xam yàlla rek a xam ñun xamuñu de tuumaalu ma kenn tamit je pèse bien mes mots ndax Sénégal loo fi wax na doon lu leer dama ne bu fekkee yéen a teg seen dil yéen influenceur yooyu ñuy woot influenceuse yooyu ñu woo ñuy woowee ay jët sateuse bu fekkee da ngeen a teg seen dil pour nax tamit ñi ngeen xamante ne ñoo joxe seen xaalis ngeen dimbali leen ngir yàlla li laay war a soon ci njekk rek mbur seleen nag wax ji bana jëm kaw ndax am na yoo xam ne nag wax dëgg fa yàlla rafetul ci seen ab der yoon yéen ñooñu ndax nag xamuñu ndax yéen yéen a teg seenaw dil la saa neex naan dil woowee dama xamul ndax dil woowu yéen yéen a teg seen ab dil daal di jël turu madame Sène teg ko fa yàlla rek a xam yàlla rek a xam ñun xamuñu de tuumaaluma kenn tamit je pèse bien mes mots ndax Sénégal loo fiy wax na doon lu leer dama ne bu fekkee yéen a teg seen dil yéen influenceurs yooyu ñuy woot influenceuses yooyu ñu woo ñuy woowee ay jët sateuses bu fekkee da ngeen a teg seen dil pour nax tamit ñi ngeen xamante ne ñoo joxe seen xaalis ngeen dimbali leen ngir yàlla li laay war a sol ci njekk rek ngeen daal di leen fay ndax nag coow laa ngi bëgg a jëm kaw tey yéen dangeen a am personnalité ak dignité am nu ngeen mel ci réew mi ngeen war a jombale seen bopp ñuy tudd fu ñu naxee nit xaalis di leen fa tudd ndax nag bët bu rusul toj te vous êtes quelqu'un dans ce pays am nga lu ngeen doon ci réew mi même bu fekkee ne sax du ngeen fi ay ministre du ngeen fi ay député waaye quelqu'un ngeen ci dans ci réew mii ñu nekk ba tax na ma di leen ñaan ku ci nekk xoolal sa ña nga xam ne ñoom nga dendal te ñu la mën a dimbali ngeen fay ñii seen xaalis bu fekkee gisuñu madame seen ndax madam seen madame seen jaa ngi dem rek te gisaguñu madame seen génn bu fekkee tamit yéen yéen a jël xaalis bi doon leen nax ah ngeen delloo rek wa ci njekk ak teraanga rek comme ni Sonko di def gars yi delloo ci njekk ku dool delloo ci njekk moom yaakaar naa ne benn problème dootul am waaye tant que tamit delloowu leen xaalis bi ndax ay pauvre ngeen lekk seen xaalis de ay pauvre nag ku lekk xaalisam dina mel ni <laughs> bilaay di nga mel ni béy wa doon sàcc ba ñu bett ko dóor ko benn bas de fer dina yuuxut yuuxut na jub fu ñu ko foogewul de yéen ñi ngeen xam ne yéen a ci bokk te ngeen am personnalité ak dignité ñu di leen woowee ay jet setteuse dajale leen ku nekk li nga am ngeen fay ñi nattoon man de loolu laa si xam sama opinion rek laa ciy joxe ndax man xuloob milliardaire yoonu pauvre nekk ca te man pauvre laa wax di xam naa sama bopp ndax man maa ngi sama place nattu ma nattaanu ma sama liggéey su ndaw si may def di ci sutur lu man ci laa yem waaye nag damaa xam ne ku joxe sam natt nga natta wara a yaakaara teggi ñu naan dugg na feeg na fii jokkor maajoor jokkor leen am njaay indi joob madame Sène mamaanaa la paix kaleeke yooyu yëpp noonu noonu dafa metti tamit te yéen da ngeen am tur ci réew mi naam sax am ngeen personnalité ak dignité waaye xam nga nag hmm, mooy loolu daal man daal bëgguma ñu wax leen lu leen métti nag ndax wax dëgg fa yàlla ay jàmbaaru jigéen ngeen nag lu mu munti demee ay jàmbaaru jigéen ngeen ku nekk yaa ngi defar sa bopp taaru macha allah kaar ñu di leen woowee ay jet setteurs na jet setteurs kon nag bu coow li jib bu mu jëm kaw ku wax doomu ngay faal wax nekk kooku ay milliards yéen ko wax sax yéen a ne da ngeen a am personnalité ak dignité wax dëgg fa yàlla kon nag bu coow li jib bu coow li jug bu mu jëm kaw te bu mu jug e ala kama sala na xira atoy sa sabali bref léegi yow journaliste boobu laay waxal yow ngente Pawlish boobu nga ñëw naan ñaa xarañ loo ñaa xarañ loo Wally Seck xew bi mu ñëwul waaye ñaa xarañ loo nga fay fekk xam nga ñaa xarañ loo daa am personnalité ak dignité ñaa xarañ loo <laughs> te ñaa nag ñaa ya ñaa dama laa bëgg man xam nga bu xew amee nga gis mu am ñoo xam ne ay géwél bugguma leen a wax lu leen metti yéen géwél yi ndax Maria Sine may sa biige Maria Sine may sa biige Maria Sin Mar géwélu ndombul la bëgguma leen a wax lu leen metti waaye yéen géwél yi bu xew amee du ngeen xam kay xew du ngeen ko xamaanoo ngeen dem di woyaan toppa ñaaxarañ loo dar ko ni dar man dara ñaakay bu ngeen nekkee groupe mu may kenn ka na ngeen ànd seddoo waaye beneen maire ba topp ca naan ñaaman la sa yaay diw waaw man billaay nag woyaan tamit mi ngay jooy sax nag metti na addina moo mét Sénégal a méttee dañ lay topp ba ca miiru wis ba ba pare journaliste yi problème bu am ñoo ko yokk yéen du ngeen bàyyi ba ba interviewé Wally Seck laaj ko lu tax demul ca xewu Pawlish ba ngeen topp ñaaxarañ loo rek lu tax euh, Wally Seck ñëwul woon lu tax gisuñu Wally ci ngente Pawlish bi waaye yow yaaxe yaaxati mu laanaa ñaaxarañ loo daa mën a yor xelam yor xeluma euh, Wally Seck ah waa journaliste yi war ngeen xoolaat seen liggéey de man de bi may seetaan sama yaram bee doon daw ñaaxarañ loo ne leen da ngeen di bàyyi ba gis waali ngeen wax ak moom ay waay am leen professionnalisme nag ci li ngeen di liggéey yow dama lay laaj waali sekk mu demul ci xewu Pawlish lan moo ci yoonu ñaaxarañ loo ngeen naan ko lu tax ñëwul moom daa mën a nekk place am nekk place waali malgré que waali xaritam la mais xamul lu tax demul te yow kay ñaaxarañ loo kay bu ñëwee kay ñaaxarañ loo mooy waali waali mooy ñaaxarañ loo léegi yow Pawlish lenn laa la fàtte woon wax pawlis Pawlish nekkal nit pawlis waali bañu la de waali aka laa bëgg am fu mu la teg te ngaa fexe ba loolu bañ a deñ waali Seck am na fu mu la teg de man gis nga man damay bëgg nit buñ ko jëlee teg ko place am place boobu mu bañ koo wàcc nga def benn xoola benn fakastalu bu ndaw ci sa diggante ak waali ba ñu génn ree la waaye doo xool ci loolu waali ñëpp a ko bëgg a gis te mënuñu koo gis de waali ñëpp a ko bëgg a xam te mënuñu koo xam ñëpp bëgg a ànd ak moom te mënuñoo ànd ak moom yow nga fexe ba jege waali mu lekkandoog yow dibi naanandoog yow kafe tukki wandoog yow toogandoog yow ci kii waxtaan yow li nga am nga ne doyu la waaye nag dama yaakaar ne loolu xëy na noo yow waxoo waali moo ñëwul ci xew bi mhm. man ba ma defee sama vidéo demb sax dama toog analyser ma ne déedéet Pawlish waxul waali moo ñëwul ci xew bi ndax yow dama yaakaar ne yow sañoo toog di am lenn looy wax waali wala lenn loo koy reproché ndax bu dee baax ci yow baax na ci yow moo gën ci yow defar na la kaar macha allah ba àddina yëpp xam la Pawlish bul yàq loolu Pawlish nee naa la tu es quelqu'un maintenant ndax ba nga amee ñaari seex lala yàlla ne xoolal léegi responsable bu mag nga waratoo def fat ci sa àddina ma bëgg nag nga toppatoo sa doom yii ba ñu bañ a génn di xarab di la xarab xam nga génnoon nga fi sa papa génn naan mooy sa papa dugg na fi génn na fi sa doom yooyu fexeel ba bu ñu mës sa génn naan suñu papa defaluñu lii wala lay wala laa te nag loo def ci àddina am na kuy ñëw fay la ko loolu lu ma lay ñaaxee la rek dama la koy ñaaxee nii rek ndax xam naa ne di nga toppatoo sa doom yi dafoo jën a jàppale dangay dof dof lu rek léegi nag li ma la bëgg a gën a ñaax mooy sa doom yooyu fexeel bu leen dara manqué ci yow la la manqué woon ba nga koy wor ci papa joo xam ne juru la woon ba sa papa génn ne moo la jur na nga fexe ba sa njaboot googu la yàlla may na nga fexe ba bu ñu génn di ko wër ci yow Pawlish dama laa bëgg man munu laa bañ ndax yow bu ma la xamee sax waalee tax bëgg gi nga waxoon bëggoon waali di wax ci moom lu baax di def ci moom lu baax di ànd ak waali waali di la defal lu baax man looloo taxoon ma xam la waaye xam nga ne yow bu dul woon waali Pawlish amoo fi benn importance boo fi am ba nit ñi di la xam léegi nag lenn laa lay wax boo jàppoon waali benn jàpp ko téeméer ak fukk ak juróom te xam ne sa ñaar téeméeri moroom a ngi toog bëgg xam waali bëgg koo jege te amuñu possibilité boobu yow yàlla may la ko kon nag ngir yàlla li war a sol Pawlish fexeel ba sàmm loolu bu la benn saytaaneeg fi misteeg ràmbaaj dugal ci ay waxu dugg na fekk génn na fekk jokkoor maajoor jokkoor leen am njaay indi jóob yaa ma ne ba ngay wax waali naka sudul noonu naam sax xam naa ne waxoo ko woon xëy na keneen nga doon wax ndax journaliste yi bu ñu la toppee ba ca miiru wis ba di nga wax loo xam ne bëggoo ko woon a wax waaye man daal li ma lay ñaax di la ñaaxaat mooy boo jàppoon waali benn jàpp ko ñaar téeméer ak fukk ak juróom ndax ku la bëgg la la naw ku la respecté ku la fonk na ku la am fu mu la teg te bul yàq loolu Pawlish jàppal waali bu baax ku la bëgg la sama vidéo xoola bere fag yàqayti mu laanaa waru ko woon a am a ah, doy na